ñu bëri dañoo yaakaar mu def débrief match euh, Marseille parce que dañoo def match nul te am déception non non damay def débrief bi franchement tey way moo ñu rey su attaquant large boobu ñu jënd moo ñu rey occasion yi saa match bi 3-0 premier mi-temps je veux rien savoir am ay occasion di caractère rek ñett ba ñeent moo tax muy génne vélodrome dañu ko sifflé mais kenn du Greenwood quoi heureusement ak booy Jonathan Rowe boobu jógee Norvis mais booy bu baax la mais Greenwood tamit kenn du moom même donte tey ñi joué ñu si moom si Merlin lañ gën a joué euh, de l' autre côté xam donc moom Murillo ñoom ñaar en première période joué nañ fa mais waaye moo ñu waroon génn bu yàgg libéré ñu 3-0 à la première deuxième première mi-temps deuxième mi-temps Reims bu génn bu génnee si si zone de jóge si ay euh, bloc bas ñu gagné leen mais foo notee que tamit Reims a bien joué surtout deuxième bi mais c' est extraordinaire waa ji action boobu da ko doon tenté cent fois du ko réussir mais xaw ma africain yi fu ñu defee Marseille gis man xaw ma nu demee parce que dañ naan seen i mbokk Mali ñoo ngi leen sant seen i mbokk Sénégal ñoo ngi leen sant dañuy rey seen bopp ba pare match bi c'est le mooy dernier journée dernier match bi donc prime time ñu tegal la ay 20 heures affaire yooyu ñëpp ñëpp baa leen di seetaan moo tax bu ñu demee Marseille seen lii lañ siy teg seen i bakken waaye bii mu ñu dugal bii kenn xam bii jënd dëgg lañu dugal 3 4 personnes nga nga pakkate leen dem béy balu ci camp yi nañu defarwaat nañu defarwaat wax dëgg fi yàlla lii moom il faut ñu jënd benn attaquant deuxième attaquant waaye tey li yaa ah ñu rey li ñaaw lii xale yi ah ñu rey ah ñu rey ah ñu lii booy daan mu way temps booy ma way ko ba tay waaye tey yaa ñu rey yo presse espagnol bari nañ wax allahu akbar li musuma gis yeen mbappe lu mu def ngeen ñu ñu clash quoi xam man mi marseille lah. donc man bu mu ne bay défendre mbappe dama xam na ñu koy tek du yoon parce que ku xamantene soy bi moy ñaata match 3e match benn bi jé ngeen ko final dugul ni bi benen bi c'était compliqué mais amna occasion yi Cette fois-ci, c'est du côté de Bernabeu. Gisoul non pas tellement, mais ça demande du temps. Surtout les quelques bonnes actions, il y def des nako. Madame ti Balbi, nous dit que passe, nous tire le gardien de Mais les blocs, même Vinicius Junior, bi, y rek real Real, Vinicius. Ça demande du temps, parce que nous avons Donc l'affaire, il faut temps. Même si le club est Real, il mou a temps. C'est ça, c'est ça qui est malheureux. Mais lo si dit que Mbappé beaucoup commencé à double Ben, dès qu'on est double. Moi, je suis rek donc euh, kii di Cristiano Ronaldo nee na bii comme que ceeb boo xasee ba sotti benn après bu génn yeneen day yomb donc ça demande du temps et man ni ma gisee nii léegi si presse bi laa gis ne comme quoi dañ commencé di attaqué Mbappé et du lu ma bett parce que presse espagnole saa ku leen dax amul quoi ñun dañu yëpp français rek mais presse espagnole bari nañu wax nañ may mbappe temps ñu ko may temps rek dinañ gis lu mat mbokk yi aussi tamit euh, si si si mercato mën nañu wax si Osimhen bi xamante ne dañ ne Al Ahly bu ñoom Edouard Mendy def nañu offre de 65 millions refusé xam nga par Napoli Napoli bu demee di xaar 120 millions du 65 millions lay jaay euh, Osimhen donc ñu la discussion yi dina continuer parce que le joueur nag franchement bëggatul toog Napoli tey sax doon nañu 3-0 mais le joueur gisul boppam euh, du côté de Italie Serie A Italie donc Paris Saint-Germain la doon xaar y a les équipes de de première ligue yu Chelsea.

yeneen xibaar yoo xamante ne gars yi mën naa ne je pense que euh, mooy basket bi euh, jigéen ñi suñu jigéen ñi ndeysaan tey dañu doon seen seen final Hongrie gagné leen mais euh, ñoo ngi leen di encouragé franchement def ngeen seen kéemtalaay kattan def ngeen li ngeen mën def ngeen nekk ngeen ay vrai gaynde yu jigéen franchement c'est à féliciter man moom Amadou leen wax et Jaraaf aussi gis naa ne tey ñoom ñoo doon du 3-0 Coupe CAF. Nous aussi, c'est à féliciter, ce n'était pas évident. donc, de gagner 3-0 et voilà, la, la route continue. On, souhaite le meilleur, Mouadjiraf, Medina. Bamba Dieng du côté de Saint-Étienne jamono bi muy wax ak ni ñii Saint-Étienne Bamba Dieng lañu jël def ko priorité pour andi ko ligue di Ligue 1 française à noter que suñu gaynde bi donc si biir xibaar yi nga xamante amoon nañu si biir semaine bi wax nañu ne Esplanade de Barcelone ñu koy suivre wax nañu aussi tamit équipe bu mel ni Toulouse mu koy bàyyi xel Toulouse nag mu ngi nekk Ligue 1 même si réseau dañuy xamal ne réseau dafa privilégié France donc Bamba Dieng man lii rek laa doon xaar nga yëngal mercato bi parce que sa place du Ligue 2 française potentiel bi nga am ak donc yaakaar bi Sénégalais am ci yow je pense moment bi ngay dem bi ngay jógee Marseille y a des leads y a beaucoup d'équipes yoo doon bàyyi xel euh, Bundesliga Premier League nga choisir le xam nga nekk benn club boo xam ne dina stable malheureusement gaañu gaañu nii toppatu topp ko lu bëri sonal ko mais alhamdulilah gis ngeen ne premier journée dafa dugal donc pour man c'est à lui d'aller euh, ban équipe la war a dem Saint-Étienne bu fa dem pour man Euh, donc stade bi day fees beaucoup de football passion baa une fa donc y a une vraie histoire donc mën nga dem fofu Espagnol de Barcelone estime pourquoi pas parce que ñoom ñooy seule équipe bi le but depuis le début de la euh, Liga du coup ça veut dire que sommes les neuf et que boo nekkee en Espagne nga toj ko nga def ay grands matchs contre Real contre Barça Séville tout de Madrid quelque chose comme ça pour dem benen équipe bu ma lu lu meuna nekk la en tout cas saint mom fa je trouve c'est un très bon choix c'est mieux que de top lii du côté de Ligue 2 française donc gars non noonu lañ ce choix là

beneen info mercato bu xamante ne mën nañu ko jox dafa concerné cette fois ci euh, Habib Diallo Habib Diallo bokkul sax ci groupe donc bu Al Shabab boole ñu ko ci seeni euh, joueur du coup actuellement dañu ne beneen équipe bu Arabie Saoudite ñu koy jaay parce que loo ci mën a dégg rek moom salaire am ngan na ngan bu xamante ne pour Ligue 1 gars yi équipe yi ñu koy laaj laaj mais salaire benn bi ñu ko jox di ko waa Arabie Saoudite fay mën ñu ko fay donc day dem beneen équipe Arabie Saoudite la ñu wax bon on va voir est-ce que loolu mën na lii parce que c'est des joueurs yu xamante entre 29 et 30 ans bon man du ma amati du ma exigence yow noonu pas tellement bu fekkee da nga def le choix financier parce que nous rek xam voilà si si si fin nga gëna a ko ci commencement t'as plus de 21 ans t'as plus de 18 ans maintenant il faut noter que l'année dernière c'était compliqué t'as même pas marqué 8 10 buts donc du côté de Chabab c'est hyper compliqué donc Chabab bolé ñu ko plan actuellement ñu ngi négocier pour jël notre international sénégalais yóbbu ko dans un autre club du côté de Arabie Saoudite yéen no leen ko ci commentaire ce sera intéressant mu am Mamadou Lamine Camara c' est un info bu xamante ne euh, franchement fiable info bu xamante ne euh, du du du ndaw mooy que dañuy wax ne Mamadou Lamine Camara maa leen ko doon wax démb équipe bii di euh, donc Montpellier daf ko bëgg ma yaakaaroon naa ne sax voilà est-ce que c'est sérieux après bi ma defaatee gëstu laa xam ne c'est sérieux donc pour man euh, Mamadou Lamine Camara il est temps de changer de club il est temps de jógee Berkane tu n'as plus rien à prouver là-bas ma gisatuma lan moo tax lan moo la fa téye man jaaxal na ma et euh, comme ni ma ko waxee démb moom laay waxaat Pape Demba Diop mu ngi Europe moom Lamine Camara moo ngi Europe tous ces jours là ñu ngi Europe donc c'est à toi aussi tamit de xam li nga bëgg je pense que euh, ses rêve moi, de jouer sur les cinq grands championnats. Et Montpellier, franchement, bon, actuellement, début de saison, c'est compliqué. Et tu as largement ta place là-bas. Il y a des titulaire. te yaa ngi dem gis naa nga toj championnat donc par rapport ak taille bi nga am gabarit bi nga am football C'est QI football quand même xam nga donc intelligent bi nga am man gis championnat Espagne euh, France ce championnat là. et que mon nga fa def dara quoi mon daal le laa gëm concernant mon camarade. gars yi am nañu may posé question tam si si Kouyaté ne xam naa si ay info yu bees Kouyaté jusqu'à présent gars yi amuñu si info dem nañu sax ba bind titre ne ça commence à bien faire ñu ngi ragal pour carrière am parce que instant yi amagul contact amagul benn offre parce que xibaar yu nekk fii ci réew mi ñoo ko bind xaw ma nag donc ñu ngi koy ñaanal si ku def 10 ans première ligue du si ñàkk am na club yu xamante ne si diggante bi dinañ la laaj on va voir xam naa peut-être ça coince surtout sur sur le côté salaire je pense donc pour man euh, actuellement boo demoon Qatar baax na boo demee c'est pas mal Ligue 1 française baax na boo demee Turquie c'est bon donc te Turquie lañ fa gën a dégg donc moom euh, loolu la même Saliou Ciss gis naa ngeen may poser question Saliou Ciss xamuñu si la la nekk Saliou Ciss ça fait 2 ans c'est c'est hyper compliqué mon frère loolu tamit mooy loolu yaa ma gën a xam n'empêche mel ni tey gis ñu si groupe bi mais est-ce que que équipe semaine bii nii ce sera une semaine décisive pour dem Nantes ou pas semaine bii nii dina décisive ba xam ndax dina dem Nantes ou pas ci semaine bii xaar lañ ko bu baax Jackson nag tey tontu na tontu bu métti quoi bu métti la xamoon naa ni lay mujjee xamona naa ni lay mujjee ba temps yi passe ma len jox information bi ne voilà quoi Abou Mikel li wax noonu man rafet ma ko et je pense que li mu doon wax noonu dafa bëgg Ousmane ñëw que que Nicolas Jackson c'est pas un grand attaquant ba Nicolas Jackson wax li wax tay ay film taal lii tëjal sa gémmiñ on ah, est des africains affaires quoi bref que sa post Instagram donte mënon na ñak quoi donte mënon na ñak parce que loo si mën a dégg tamit Abou Mikel il est respecté du côté de Chelsea il respecte respecté il est considéré comme légende sax presque tellement dafa yàgg si si club boobu man nga tontu sans pour autant voilà loolu pour man ñun supporter mën nañ ko sans pour autant mu mu am manque de respect xam nga donc mu wax na leen lay wax je pense que amul manque de respect juste que jàpp nañ ne attaquant mo war a mais bon tontu nga ko lolou amul leen amul lu si wax maintenant euh, yéen xamu noo leen koy gisee Jackson en tout cas lu ci mën a dégg il a un bon mental je pense que ngi déglu ñi mo ngi mo ngi xol lan wax ci mom quoi et eh, équipe Moussa du Sénégal rek moo si des mu taal bi parce que il a fait son match passe décisif double but de la tête franchement c'est c'est bon signe euh, pour pour saison concernant Nicolas Jackson en tout cas je mosuma mosuma am jiixi que Jackson cette année il va prouver loolu gëm la xam donc même en Moussa nationale Sénégal dama gëm ne day yàgg rek moo war a nekk numéro 1. donc du titre, sans problème. mënuma jeexal information yi te duma wax si Bouna Sarr bi xamante ne ma koy laaj si live bi démb laaj ngeen ma ko lu bëri euh, di leen wax ne sax live bi dina ñëwaat mardi incha allah dañu live xam nga bu ñu ko mënee tey aussi tamit xam nga dinañ bu ñu ko mënee si guddi si si kanam dinañ ko jéem mais information Bouna Sarr man bu fekkee da ngay laaj sama xalaat dama jàpp ne Espanyol de Barcelone la jëm loolu xaw parce gisuma lan moo tax intérêt muy dem Barcelone di fa toog gisuma i

après Mikel Mingorfe mi dem ren gis nga nga si officiel photo yi na tey cette fois ci on parle du Mbacké bi mooy beneen sénégalais bi fa nekk nekk défenseur doomu Tëngéej bi dañ ko paree bàyyi pourtant waa Barça dañ ko sax prolongé de jëlee ko fële États-Unis donc euh, waa Barça parfois seen doo leen xaw comprendre di jël yenn joueurs yi mais après doo leen lancé quoi maintenant yéen noonu leen gisee euh, donc euh, bu baax wala gëm ngeen ne loolu mën et le choix de Barça bi bëgg jaay suñu euh, défenseur bi ci commentaire wax leen ma ko ma sant leen gërëm leen wax leen au 77 352 31 01 mbokk yi jaajëfal naa leen wax leen ba beneen TV.